नीयस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 fii lay xewee ci biir xumb te dagan officiel nee naa leen ku ñu bëgg a topp rek da ngay abonné ci page YouTube bi xumb te dagan officiel bu ko defee nga mën a topp suñuy waxtaan ñi ngi bëgg ñëpp di ñëpp ñëpp ñëpp macha allah ñiy laajte vidéo yi fan lañ nekk fan la ak nan la fii ci biir xumb te dagan officiel astuce yeeg produit yeeg góor yeeg jigéen yëpp rek bu ngeen ñu toppee suñuy waxtaan des fois dañ koy indi bu ko defee ñu mën koo partage ak yéen macha allah mi ngi noonu tey dañuy ñëw ci fàttalante ci jigéen bi ak borom këram waaye jigéen bi ci biir néegu sëy bi waaye tey jigéen bi ndax am na droit di planer maanaam defar emploi du temps ndax tey damaa war a sëy ak sama jëkkër ndax suba damaa war a tey waruma sëy ak moom ndax benn fan laay sëy moom ndax ñaari fan ndax nangam nag sàngam dafa mel ni dañuy réeree mbir mooy que ni yëg-yëg bi nit di am bu soxlaa borom këram yëg-yëg bi nit bi am bu soxlaa jabaram du loo xam ne nii da koy programme du loo xam ne dañ koy programme ndax xiif dañ koy programe ñu bari dinañ na ma déedéet wala ñëpp dinañ na ma déedéet ndax safa tuur ndox dañ koy programme ak yeneen ak yeneen loo xam ne nii day ñëw naturellement ci nit ki ndax da koy programme déedéet noonu la yëg yéeg bi nga xam ne nii dafa nekk ci nit ki mu war a soxla boppam war a jot boppam du loo xam ne danga koy programme des fois nga dégg ci jigéen ñu ne ah tey samedi la dafa war a neex de waaw war na neex ndax lan dimanche ñu baree bari duñu xëy ndax dañuy am temps bi mën a def wala mën a guddee tëdd wala mën a def yenn yi jël seen temps et tout ça bu dee dangay ngay xëy da ngay sóoraale teel a tëdd ak et tout ça dëgg la mais nañu xam ne du loo xam ne ni dañ koy programmer des fois sa jëkkër soxla la ñëw la subitement laal la nga ne ko non mënuma ko ndax lan damay xëy damaa war a teel a jug ndax nangam ndax sàngam am ñoo xam damaa war a jug julli fajar damaa war a nelaw damaa war a jug damaa war a sàngam yooyu yëpp dëgg la mais joteeg bi ngay joteeg sa borom kër moo ëpp tuyaaba yooyu yëpp ndax yonent salaay wax na ci xadis mu ne isa daa rajuli imraatahu ila firashihi falam taati fa baata qadbaana mu ne laanatahu lmalaaikatu laanataha xataa tusbiha nee jigéen bi bu ko borom këram soxlaa mu woo ko ci lal bi maanaam mu ñëw soxla ko bëgg a sëy moom mu laal ko muy indi ay benke ñenke di indi leneen ak leneen nee mu bañ nee na malaaka yi dañ koy fanaani rëbb dañ koy fanaanee rëbb te rëbb malaaka moom baaxul yàlla nañ ci yàlla musal kon lépp loo xam ne nii jigéen bi da koy programmé donte dangaa waxtaan ak sa borom kër nga ne ko par exemple ñetti fan la ñuy sëy ci ci ci kii bi ci semaine bi ñaari fan lañuy ñuy sëy benn fan la ñuy sëy nangam ak sàngam yooyu yëpp même bu dee da ngeen ko programmé xam leen ne yëg-yëg bi ngay yëg du loo xam ne ni danga koy programmé mënul nekk sa impossible lu loo xam ne danga koy programme samedi ba samedi laa bëgg di sëy sama jëkkër nga acti nga mel ni lu koy activer mel ni bultuf boo xam ne dafa nekk sa yaram nga activer ko mu daal di yëg-yëgu soxla sa jëkkër nga nekk ci wala monsieur daal di moom it def pare loolu loo xam ne nii dañ koy programme nañ bàyyi les choses naturellement mu ndox naturellement ñu defee ko naturellement bu lu ngeen waxtaanee ba djubo la la bass am problème su len nexé doxalee ko non mais xam len né yeg yeg bi nit di yeg c'est naturel lay ñoo naturellement mën na ñëw lundi mën na ñëw mardi mercredi jeudi vendredi ba samedi ba dimanche mën na ñëw jour bu ko neex loo lo xamné ni danga koy programme kon lool tamit nañ ci baye xel bu baaxa baax jigéen ñi di yombal borom kër yi borom kër yi tamit ah baña jafel mbir yi ñewon nañ ci ndax jigéen war na tere bopum borom kërëm ñu né dédé am ay question yi ñoo ñu ne ndax góor war na tere boppam jabaram loolu beneen waxtaan la dinañ ko indi incha allahu fii lay doon ci biir xumbata dangan officiel réponse bi dina ñëw incha allahu du yàgg dara bu ngeen ko bëggee nag da ngeen ñuy topp daal di abonné ci page bi bës ci cloche de notification bi bu ko defee ngeen mën a topp suñuy waxtaan incha allahu bu leen ko rate fii lay xewee ci mbir xumbata dangan officiel maa ngi ziar ñëpp amoore mio ziar naa lu baree bari waaw sama tonton jéeri maa ngi koy ziyaara bu baax a baax sama séeréer bu séeréer bu ñaawul boobu ak sama xarit yeeg am di jàmm yi macha allah mbokk yeeg ñëpp fépp fu soppe nekk rek wax dëgg yàlla maa ngi leen di bége bu baax a baax a baax a baax ki na njaay moo coach maa coach de séduction maa ngi lay ziyaara bu baax a baax waaw ku bëgg a suivre na Ndiaye da ngay dem fi nga xam ne ni mooy page YouTube na Ndiaye coach séduction mom tamit mi ngi def yu am solo sha allah li ngeen di gis ni ma yor ko di puissant xam xamna ñu bari nan ko laaj pompe menthe la ku mu jëm ci gemi no la mu saf ko ko ci ko xam mi ni ngi ko koy def deg jam do son di macc ay tangal di dem gauche droite li ngeen di gis ci pañe bi ni gam la pour góor ñi dina ñëwaat waat ko insha allahu faram-fàccee ko won len nan la nakala ak lu nek lan moko taxaju gam la pour ñi gaamu jigen ñi ñewon nañ goor ñi laaj seen wal ñi ñi ma sha allah dinañ ñu wat ci biir Khoumbatta Dagana officiel fi lay xewé ku ñu bëgg top rek da ngay abonné ci page youtube bi Khoumbatta Dagana officiel bëgg na ñep ziar ñep ñu yemandi fi rek insha allah ba benen wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu aleykum wa taala wa barakatuh.